non du génn bi manière génn bi la. non non c'est foor na foor na. <laughs> waaw kon ñu doxal. Euh, voilà kon mu doon ay tenues yoo xamante ne comme Adja nu mu ko waxee. Euh, ay tenues yem la yoo xamante ne du la encombré. parce que comme euh, li ñu doon faral di gis. kuy muuru abaya nga daan gën a farataal di sol. ndoket nga daan gën a farataal di sol. Euh, grand boobu nga daan gën a farataal di sol te daf lay fekk sax nga nekk xale mais soo ko solee daf lay daf lay jox benn âge boo xamante ne xëy na yow tollooguloo foofu ah euh, mu mel ni daf la daf la magel lool lool lool te pourtant mën nga sol ci tenue yi nga xamante ne ah euh, respecter sa charte muuraay mhm. tolloog sa ak sa jamono waaw waaw tolloo ak sa jamono te mu doon lu rafet ah Adja mhm. hmm? loo ci xalaat Adja ci yooyu lay dox. waaw gis nga non non c'est li nga wax c'est li nga wax c'est danga wax lu am solo mooy euh, topp dégg nga maanaam nga yiw. Mhm. mais topp euh, nekk ci jamono. Mhm. parce que man damay gis da nga ci euh, maanaam cérémonie yu mag yi. Mhm. da ngay gis koo xam ne ñëw sol kii veste. femme. pare muuro. c'est très joli. leen di gis ci man kii yooyu. Euh, euh, boo de gala yi soirée de gala yi boo mm-hmm. duggee kii euh, benn compagnie am na benn bon du ma bëgg kii bëgguma publicité. Mm-hmm. benn compagnie aérienne. Mm-hmm. boo duggee boo leen gisee seen seen seen kii yi. ak ni ñu muuroo. effectivement non mais c' est que c' est extraordinaire. waaw muuraay rafet la ñuy def. dégg nag genn wàll gi waaw genn wàll gi profil la côté bii la. waaw ak couleur yu rafet yi. voilà d'accord donc rek ce qui veut li nga wax euh, dafa am solo. Mhm. dégg nga yiiwal mais tolloog jamono. Mhm. daf ci am solo. daf important. Mhm. loolu la ñuy wax mën solo. waaw mën solo. lu ñëw nga ànd ak moom waaye ba léegi yaa ngi yiw. voilà mi ngi noonu mi ngi noonu. moo taxoon tey euh, ñu indi lii euh, parce que on s'est rendu compte que bu njëkk ba xëy na. ñi doon def habillement bàyyi woon torop xel ñiy muuru mais léegi de plus en plus ñu ngi leen di jël en charge ñu ngi bàyyi xel ci ñoom di xool seen bëgg-bëgg di xool euh, ñoom lan la ñu soxla ñuy mën a aussi di leen di leen sóoraale ci yooyu ba tax dañu spécialisé wu rek léegi de plus en plus ci euh, habillement nit ñuy muuru léegi. waaw pour euh, fi voiler effectivement. mu nekk lu euh, lu lu am solo madame madame la beauté. madame la beauté. <laughs> man moom <laughs> damaa bëgg a muur damaa bëgg a muuru. Ah. wante xam nga yére olof yi moom ma ci xawoon euh, moo ma moo xawoon doy waar. Hmm. mais fekkee ne yére tubaab yi nii mën nañ ko boole comme ni nga ko defee nii mu jekk ba bëgg a dee. jekk lool. ah lool kay. xam mën naa xalaat ma muuru. waaye seulement xam nga lan mooy wax bi Amina. Uh-huh. xam nga macha allah soo jonga ma comme yow. tarkaal la c'est le problème soo soo muuroo day daal di rafet. Mm. nga xam soo meloon ne damay daal di muuru wante xaw nga <laughs> soo melee nii ma mel nii bëgg a muuru <laughs> te létt yeeg yooyu moo la ciy génn moom day doy waar <laughs> ah pourtant yow boo mu woon déjà lay rafete non muuru non ma macha allah macha allah macha allah ah, mais kay ma wax la benn secret uh-huh. mais ku muur gën a rafet déjà jigéen ñëpp dañoo rafet mm-hmm. mais ku ci muuru gën a rafet kër ni dan damay muur dangay muuru ba pare yow yaa ngi sol ay yére olof macha allah mu jekk bëgg a dee mm. kol gi rek a ci des indi ko ni indi kol gi nga muur rek bëgguma niroog kit féete sama fii de <laughs> bëgguma niroog moom muur fii dafa ñëw sudde may dem bàjjenam waaye doomu bàjji nag mais mais en tant que spécialiste euh, beauté. Mm-hmm. noo gisee euh, style yi ñu jaxase yi ñu yu ñu yi nga xam ne indi indi indi nañ ko tey. Mm-hmm. rafet na trop Ndeye Astou couleur yi ñu génne xam nga harmoniser ko ba mu baax xam nga lépp même lekk sax boo ko présenté wul présentation bu baax. Euh, bëgg lekk mm. solu tamit noonu la lu nekk da ngay xool euh, lu mu àndal nga boole ko ak moom xam nga li ci gënoon graaw mooy que ne dañuy doon jàpp ne ñii muuru mënuñu takk accessoire mm-hmm. ndaxte seen muuraay bi leen di muur moo tax mm-hmm. tey fexe nga ba génne sa chaîne ci li nga takk mm-hmm. mu nekk loo xam ne dafa am solo benn tous la boo xam ne léegi laa commencé gis ñu ko ciy boole mais autant ku muuru rek du takk benn accessoire parce que da wax que ne ba pare mm, pour man li taxoon ñu bëri bëgguñu woon muuru mooy ni ñu ko jëlee woon làmb bu sol abbaye doo jël temps wu maquillé wu doo jël temps wu defaru parce que da ngay muuru rek da nga bàyyeeku que léegi nag macha allah wax dëgg yàlla comme yow comme ajaratu nday astu dañuy dañ ñun daf ñuy jox envie ñu muuru ndax couleur yi da nga koy harmoniser ba mu baax takk seen i accessoires yu rafet ba pare jël soin ci seen bopp ba nga xamante ni muurul yóbbuluñ leen dara kon contraire fu ngeen nekk ñun dañuy puus man sax moo tax sawaruma bokk ak yéen plateau mais tey <laughs> pexe amul <laughs> mais daal macha allah rek moom rafet na te am na solo am na solo te voilà mhm, te te li ci li ci am solo mooy nekk gis nga mhm. différentes tenues yi ñu am. am nañu ay tenues yoo xamante ne jupe la. Mhm. am na yoo xam ne robe la am na yoo xamante ne pantalon la donc yow nit ki moom mooy def choix am. selon aussi corpulence am. waaw euh, corpulence bi aussi. waaw am na ci solo. Mhm. kan moo mën a sol pantalon ak nu mu koy ak nu mu koy nu mu koy sole waaw man je me dis déjà que pantalon ku ne mën na mën na ko sol. Mhm. mais léegi mi ngi des nag euh, taille bi naka lay demee. Mhm. est-ce que da ngay sol pantalon boo xamante ne euh, coupe bi dafa dafa xaw a dafa. dafa tuuti dafa dafa slim. kii est-ce que yow da ngay sol bas large wala est-ce que da ngay sol taille bu yem daal. Hmm? parce que su fekkente ne yow da tuuti. près du corps mais près du corps voilà très bien voilà voilà le mot. bu fekkee danga sol euh, près mais pas trop serré parce que warta serré soo solee près kooku ki ki tuuti nit ki tuuti moo ko gën a mën a def. parce que su solee près boobu su solee haut boo xamante ne dafa wàcc par exemple ba muur hanche kooku xam nga ça passe parce que nit ki dafa tuuti donc su ko solee day am harmonie. nëbb na ay formam et tout te pourtant rafet na am na classe dem na par exemple su fekkente ne euh, yow da nga am yaram ba ba ba mel ni man kooku noonu près du corps waru la faaw nga sol tuuti xamante ne xaw na large wala sax ñi privilégié jupe parce que boo solee jupe bi. waaw jupe yi c'est très joli. c'est très voilà. ak robe yi tamit voilà voilà. robe ji mais bu fekkente ne robe boobu par exemple su fekkee yow da nga am yaram. Mhm. privilégié par exemple fii ci bist bi xëy na ba ci bist bi fa la ñuy téye. Mhm. mais après li ci des na na ample tuuti. Mhm. parce que pour na pas marquer trop. Euh, forme yi ci forme yi ci suuf. bu ko defee kooku ki am tuuti yaram mën na sol façon robe boobu mhm. hmm? euh, bu fekkente ne par exemple pantalon nga privilégié tam pantalon bi na xaw a mhm. tuuti baay bi na xaw a na xaw large tuuti mhm. bu ko defee également yow tam dina mën a wàcc mais beneen beneen kii bi la mën a jàppale mooy sa oo yi oo yi na dépassé carrément na ñëw ba parce que bu ñëwee ba ci mi dina mën a nëbbaale yenn rondeur yi bu ko defee euh, sa solo dina yiw dina rafet mais cuisse mooy mooy mooy mu dépassé hanche mu dépassé hanche ñëw ba ci waaw waaw mu dépassé hanche yeggul ci oom yi yeggul ci oom bi voilà diggante bi ak ndig bi voilà très mi ngi noonu Amina wax nga lu am solo parce que da ngay gis yenn saa yi yi nag ci lu ci ëpp ci ñoom laa koy gisee ñu mhm. muuru mhm. mais lenn rek la ñuy respecté mooy muuraay bi waa mais nit ñi solo duñ ko respecté day mel ne man mu wul bu solo sol benn tubéy bu dang jël sa forme nga boole kook eau bu gàtt après yow da wax ne rek ne yow da nga muuru mais li ci des yëpp yow respecté woo ko te comme ni ko expliqué nii au booy sol boo solee tubéy bu xaw a jël sa forme o bi dafa war a wàcc mhm. nga xamante ne du marqué loolu daf ci am solo parce que tamit muuru dafa am mhm. loo xam ne noon nga war muuraay bi dafa am dafa mhm. bon euh, li nga xam ne moo di euh, pantalon bi mën nañ ko sol mais mhm. dafa am règle ah. règlement mhm. jupe bi aussi jupe mën nañ ko sol waaw jupe moom c'est c'est moins c'est moins grave waaw waaw ku am yaram ko ku am ku tuuti yëpp mën nañ ko sol effectivement waaw nu ko waaw ak robe yi mhm. nuñ mën a solee jupe yi ba ba mu rafet Hmm, noo déggee sa question. jupe yi naka lañ ko mën a harmoniser ba loolu luñ ko mën a boole ba mu rafet. ah d'accord euh, bu fekkente ne par <laughs> exemple euh, kii la euh, jupe bas large par exemple euh, maanaam jupe bas large jupe jupe jupe mm-hmm. hmm? kooku noonu haut bi du gudd torop. gis nga comme élément bi ñu am haut bi dafa yam dafa yam rek tout juste parce que haut bi déjà dafa am. donc warul ample ample ba passé ange bi wala kii yoog yooyu dafay yem tout juste rek. mën na ko mhm. brailler sax bu ko neexee. Mhm. wala waaw. am na wala bu eau bi guddee mën na marqué taayam aussi. Mhm. mën na sol bu xaw a gudd jël ceinture marqué taayam. waaw ba tey ba tey mën naa dem mën na nekk bu fekkee aussi jupe serrée la comme jupe yu xew li nga xam ne day jël taille bi ba serrée ba si kaw. mën nga ko booleeg chemise. chemise bu gudd. waaw boobu eau bi foog mu gudd. waaw. comme ni Rose doon na ko wax la la dernière fois. Mhm. bu yaatoo ci kaw ci suuf dafa war a xaw a est-ce que est-ce que est-ce que ça c'est est-ce que mën nañ ko appliquer ci ci mode islamique loolu. Euh, waaw ñun par exemple man ni may gën a gis par exemple ñu pour ñu marqué taille mhm. euh, xëy na du ñu jël ceinture yu mag yooyu nga xam. carrément mais li ci gën a gis dañuy gis benn cordon lay doon wala benn ceinture. ah boo xamante ne bu sew boo xamante ne boo ko téye moom mooy marketaay bi moom mooy moom mooy euh, voilà mooy marketaay bi daal mm, mais du ñu jël ceinture mag yooyu. waaw waa téye ko ba nga xamante ne dafay jël sa forme bi nii complètement mm. tout le temps daal à chaque fois ak lu taar bi lu mu mu ñëw ñëw. il mm-hmm. faut euh, règle islamique yi ñu koy. waaw ñu di ko topp ci wàccoo ci mode islamique. effectivement ci mode bi parce que daf ci am solo daal. am na ci solo hmm? mooy mooy. code de la route waaw mooy code de la route moom buñ ko wàccee rek. <laughs> day am lu bari day am lu bari lu manqué. Hmm. <laughs> d'accord mais amul ay couleur tamit yoo xam ne moo gën a jàpp kii muuru ndax xam nga tàngoor bi tamit sol lépp lu ñuul nii est-ce que yooyu tamit. maman yooyu dafa xew wi de ay sol lépp yu ñuul. Mm-hmm. est que gisati nga ko sax. Adja fi mu génnee ci eaux et couleurs amoon na peut xam naa ci dëkk naar yi xam nga dëkk naar yi ak suñu dëkk yi c'est pas pareil aussi ñoom c'est plutôt culturel dañ dañ voilà c'est culturel mooy burka yi blanc blanc beige noir la plupart. Mm. boo demee dëkku naar yi noir noir ou bien beige ou bien noir waaw noonu la noonu la ñoom mais duñu comme jaxas yi c' est après daal nga koy gis léegi. waaw mais léegi nag am na de. non ah, non loolu laa dama ne avec la modernité. Mhm. xam nga léegi euh, affaire yaa ngi évolué. Mhm. léegi yii ngay gis. yu ma ni ngay gis boo demee ci mhm. dëkku naar yi. léegi couleur yii ngeen di def yéen jaxase couleur yi indi nangam seen feem yooyu ngeen di def loolu la quoi léegi. mais li ma maa wax dëgg la damay seetlu par exemple man su ma ko xoolee sama bopp au tout début bi may soog a muur ah, dama bari col yëpp noir soo solee robe yëre bu rose ak yëre bu vert ak noir am na ci benn jour sama yaay damaa col mu ne ma xanaa sa benn col bii rek nga am ma ne ko yaay man damaa bari ay col de wante yëpp noir la effectivement <laughs> parce que <laughs> lépp noir la amee sama yaay dafa yaakaaroon ne man benn col rek laa am te fekk am nga col yu bëri mais mhm. sa xel moo la dul woon may jamono yooyu mhm. nga ne yaa ngi def ay couleur yaa ngi couleur maintenant comme je dis jamono dafa dox affaire boobu xeewi na léegi mhm. les gens comme mode bi ni muy demee ñun tam noonu la ñu osé léegi les couleurs ah, ñeme ñeme léegi dañuy ñeme sa mais est-ce que mais est-ce que osé yi dafay am dafa war am limite osé bi est-ce que am na limite du moment que yow yaa ngi c'est correct du moment que li ngay li ngay muuroo mi ngi correct euh, couleur yi c'est en harmonie on peut se laisser aller. mën nañu jaxase n'importe quelle couleur. Ah, jël mille couleurs kaw ba suuf jaxase. Euh, waaw loolu quand doo ko mën. doo bon bon eh, bon bon dina am limite. waaw dina am limite ah. euh, parce que dangay xool xool ko rek tam ci ci ci ci kii muuruwul. ni parce que des fois dañu naan léegi couleur yu moo xew. waaw mais du dépassé quatre couleurs. waaw du dépassé quatre couleurs effectivement mais sama sama sama sama yenn doom bàjjen sama sama genre mën nañu jël dix couleurs dix couleurs. waaw <laughs> ah, déedéet yooyu yi xew waaw te li nga wax dëgg la. <laughs> parce que par exemple man col bi ma njëkkoon génnee pour euh, pour muuroo ko. Mhm. bi ma ko génnee di ci discuter ak euh, ak sama sœur. bi dafa ma ne non non déjà euh, am na couleur hmm? soo bëggee jël Euh, col bi nga xamante ne bien vrai que nuroo na ak bii mais dafa amaat encore yeneen couleur mhm. day bëri mu ne ma voilà day chargé si la ma si la ma ne mais seetal bi ba xam après si laa xool bi xool bii nii daal di génne fem bi xam nga mu daal di mu daal di génn waaw effectivement mm-hmm. effectivement parce que tam li nga wax Adja noonu la on ne peut sa se tam tam euh, jaxase couleur yi noonu bu yàggee xanaa da ngay nuuru sapin wala affaire yooyu <laughs> mm. couleur yu fës fës fës fës yi jaxase comme par exemple nga jël ay couleurs yu bari bari yu fës fës. waaw mhm. ay par exemple ay vert fluo. ay vert fluo yoo xam ne am na façon yi façon yére yi façon mm. yooyu est-ce que est-ce que est-ce que ànd na. waa man de bu dee man dama part personnel xam nga nag ku nekk tam ak guuwam. Mm-hmm. mais je pense que euh, solo balaa muy gën a rafet ànd ak sobriété. sobriété mm-hmm. waaw. sobriété mën nga jaxase voilà mën nga jaxase ay couleur mais mais mu am waaw mu sobriété daal waaw sobriété dafa am solo waaw ci am ay couleur yoo xam ne yooyu la yoo xam ne voilà c'est c'est trop flashy c'est trop flashy ba mu ëpp daal boo ko defee yooyu xam nga rafetul daal même ku muuru sax mu ko defee sax su génnee dañ ko xoolaat waxtuma mm-hmm. nag yow nag yow nga bëgg jël sa kol nga def ko xam nga boo defee col bu vert ver fluo sol yëre bu rose beneen bu rose fluo bu orange bu nangam c'est ah, c'est très chargé ba pare paye ci di si bëri torop ba mu chargé wu langal fii ay affaire mu def ay ci mbir ci cimbir kool tamit xam nga bu simple tamit est du gën a rafet <laughs> waaw euh, peut-être xam nga peut-être xëy na paillettes yooyu yaa ngi koy gën a gis par exemple ci xew mais fekkente ne foog naa euh, koolu jour nii rek mm-hmm. euh, nit ki di génn dem liggéeyi walla dem jàngi mm-hmm. ah wala soxla soxlam kursam ni xanaa du jël ay payet ak ay langal langal langal. Hmm, xëy na kii maa ngi koy ah? gis bu baax day am hmm. hmm. waaw bu baax ok bëccëg bëccëg mhm. dañ ko sobriété bi daal sobriété bi ci xale yu jigéen ñi sax nga koy gën a gisee dañuy wàcc fii payet lang lang waaw léegi xam nga loolu lan la ah façon col yooyu la xam nga dafa am waaw col yooyu la euh, yooyu itam boo ko génnee alors que xew yàgg na xew mais xam nga rek xale yi bu fekkee dañ nekk xale te xamuñu affaire yooyu man école yooyu je l'aurais plus euh, conseillé par exemple buñ ko buñ ko bi muy xewee noonu je l'aurais plus conseillé ku am xew. Mm-hmm. waaw parce que comme tu dis dafa tàkk torop daal. dafa tàkk dafa tàkk torop. waaw booy dem benn benn bi rek dafa tàkk waxtuma boo ci jaxasee ay couleur yu vive yu bëri <laughs> waaw day doy waar waaw day doy waar mais langal-langal yi nag quand même xëy na bu xale yi di di di dem xew ay mm-hmm. ngénte ay mariage wala affaire demee noonu <laughs> si lañ koy gën a def jaajëf waay jaajëf waay jaajëf waay mm-hmm. jaajëf li mu wax yëpp jaajëf waay. jaajëf waay <laughs> ci taal ma ci beneen beneen jaajëf waay Amina ñu gërëm la. waa jërëjëf <laughs> dañ lay. Rose te na. Rose notre esthéticienne professionnelle. jaajëf mm-hmm. fas yéene ñëw tey waxtaan ak ñun ci maquillage ah, ak. maquillage ak règlement de maquillage. règlement maquillage. ni ñuy maquillé waaw encore jëf waay kon euh, euh, Rose. plateau baa ngi noonu. ma <laughs> waxtaan ak Sénégal. Euh, merci am na uy ma uy ma. Eh, eh, merci ajuma bi di ñëw. ajuma bi di ñëw. dëgg la moom mooy toog fii. il faut que ñu il faut que présenté. oh là là <laughs> da nga foog ne yow rek yaay ko ci fii wax dëgg yàlla di neex na bon tey Rose ñuy wax ci ci maquillage mais tey nag maquillage star ci star yi la ñu jëm waaw. Euh, suñu suñu star xool euh, seen maquillage <laughs> xool euh, seen pastel. seen rouge ak seen fond seen fard mhm. ci la ñuy dem nag ñu ànd ak El Hadj Modou Diouf kàddu gi. waaw <laughs> moom ci maquillage bu ëpp encore la ñuy waxaat tuuti ndersu. Mhm. voilà tout luy fard fard à jour crayon tout waaw kii kii maquillage waaw tata ah, mama makine laam la waaw maquillage bi noo ko gisee maquillage bi dafa ëpp hmm. waaw maquillage mama makine laam ah, dafa ëpp te àndul ak lim sol mhm. déjà yére yi rek mënoon na bañ a def maquillage boo xam ne dafa ànd ak yére mi dafa niroog yére dafa te elle était pas obligée mënoon na jël benn couleur couleur si yére yi rek def ko si bët mais dafa jël bleu bi ak rose bi def si bët yi hmm. loolu c'est pas bon te dafa dafa maquiller bët yi maquiller kii gémmiñ yi ça se fait pas aussi lu ñu war a def daf su maquillé ba dina maama wala maquillé gémmiñ gi parce que c'est trop après. mais mais mais est-ce que star yi ak célébrité amuñu euh, façon maquillage. bu bu euh, wuute est-ce que ñoom mënuñu chargé. Ah, ba parce que non li nga wax euh, tuuma la merci parce que li nga mm-hmm. wax. xam nga artiste. Mm-hmm. buy nekk sur scène. Ah. day maanaam il faut que mu. na gën a fës waaw fay gën a fës. moo ah, que sax dañuy wax sax mm-hmm. Euh, cérémonie bu amee. se vrai euh, ke xool. Mhm. Euh, cérémonie. waaw. waroo takk cravate boo xam ne. Mhm. moo gën a fës ba président bi wala ambassadeur bi waaye nangam. moom moo moom gan bi. Mhm. gan bi moom mooy am bu fës. voilà dëgg la. dëgg la mais mën na maquillage maquillage bu gën a fës parce que c'est normal ay artistes lañ mais mën na aussi normal ñoom comme guddi la en plus xam naa. mënoon nag mën na gën a fees mais mën na aussi normal maquillage am. bon euh, mu respecté état bi artiste artiste artiste il ah, faut. mu nekk voilà mu normal aussi. lu yem daal da ciy baax lu yem waaw. lu yem ngay prôné waaw. poudre bi mën na gën a claire c' normal mais pas trop. itam mhm. poudre bi dafa clair de trop mais waaw c' trop. yaramam daal kii couleur yaramam c' pas bon. ñu dem ci beneen photo. Mhm. comme bii tamit suñu maman Kiné Lam la. bii moom la ba tey. moom la ba tey waaw moom la ba tey. Mm, moom la ba tey. Mm-hmm. moo bu ñu ko buñ ko mën a joxe euh, plein écran. Mm-hmm. plein écran pour ñu xool. voilà la yéen bu ngeen ko xoolee sa xam naa di ngeen gis lii erreur bi. Mm-hmm. waaw ba nga ci gis ci lii. alors erreur bi mooy xool leen kanam yi ak loos bi àndul du tout. poudre bi c'est trop. na ko au moins wàcce poudre kii bi loos bi. mu niroog kanam gi wala mu wàññi kanam gi c'est trop trop parce que gisuñ gisatuñ sax boteem te ma Mama Kiné Lam maman wu rafet la gisatuñ sax boteem xool bu ngeen xoolee poudre bi kese ngeen di gis mm-hmm. gisu leen kanamam mm-hmm. lu mu doon war a wàññi poudre bi la war a poudre bi la war a wàññi fii poudre bi c'est trop trop trop bëri na trop faar yi tamit bëri na dafa ñuul dafa dafa durcir bëtam yi dafa mm. voilà comme bii tam mm. poudre bi dafa ëpp boo mhm. bi dafa ëpp mhm. faar yi c'est pas bon. waaw bi moom bi moom bi moom waaw waaw boo gisee loxo bi kanam bi ak loxo bi bokkuñu tey waay voilà kikal la te maquillage am dafa sëy waaw ah, d'accord te maquillage dafa foncé si bët yi te maquillage bu foncé day dur si sa kanam maquillage si bët yi waaw bu foncé hmm. bu bëri day dëgëra sa kanam hmm. sa kanam du du léger daal d'accord voilà dañ ko war a bon maquillage si bët dafa ñu bañ def nga def mu mel ni defoo voilà a def lu ñuul ci kanam si bët bi yëpp mën nañ ko def mais ça dépend aussi si li ngay sol et tout ça. d'accord voilà. waaw mhm. oh, maquillage dafa am règle bon. dafa am règle dafa am règle Modou warul niroog sa sa yére yi ngay sol. Mhm. warul aussi noir ba ëpp. voilà même personne bi la c'est pareil. mais mais bii amul faute wala. waaw bi moom tane na. waaw bii mooy ki tane. parce que boo gisee Amina la. boo gisee maquillage bi harmonie na. Amina kenn déggu la. donc <laughs> dama ko doon bàyyi mu mu commenter affaire yi. wala <laughs> day ci day ci sa grain de sel sa grain de sel. waaw nañ de waaw. <laughs> man je trouve que bii moo ci gën a. moo tane par rapport. voilà c'est vrai waaw. déjà teint bi c'est defar nañ ko ba mbaax. waaw niroo naa te couleur yi mu def si bët yi c'est bien. Mhm. c'est Mm. couleur yi kii nañu waaw couleur yi frais nañu ànd na waaw génn na daal parce que fii yaa ngi gis bët bi waaw bët bi génn na dafa am solo voilà jigéen bët mhm. jigéen da ngay da ngay da da ngay en valeur say bët say bët dafa am ñett yoo xam ne ci euh, ci euh, ci kanamu jigéen ñett yooyu boo ci amee ñaar mhm. walla sa au moins sa nga am ci benn rek da nga koy mettre en valeur mhm. pour mu génnee sa rafetaay xam nga mooy lan lan ñett yi bët bakkan ak gémmiñ ba am naa ko. ñett yi boo ci amee benn boo ci am bu dee da am ñett yi nag mettre ko en valeur bu de benn bi am nga ko mettre. waaye am na noo xam ne boo ko defee nga laaxee ko. Mhm. yow sa beauté dootul génnati. yaa mhm. jëf waay léegi dama. waaw euh, coach yow connaisseur nga. <laughs> connaisseur. <laughs> kii nag titi la. kii kay ah. titi la. titi. titi la ça va. bi maquillage am ça va. teint bi mhm. c'est bon aussi. bii zéro faute waaw bii zéro faute ça va. Mm. mais mais mais mais man dafa am lu ma gis fii bon je sais pas peut c'est la photo ou bien c'est aussi l'image mais mm-hmm. euh, il m'est difficile pour man ma xàmme ne euh, kii titi la dafa maquillage bët yi la voilà moo tax ah, xàmmeewoo ko ah voilà gis nga li ma la doon wax léegi voilà li ma na waaw <laughs> dëgg la ah coach c'est bien. Ah. parce que loolu moo leen njëkk a frappé. moo leen njëkk waaw dafa allongé kanam gi. très bien xoolal dafa yéegal dafa yéegal suuf si très bien. yéegal yéegal voilà yéegal yëpp ça c'est parfait. voilà. maquillage bi c'est très très bien. très bien y a rien à dire voilà gis nga fii. pourquoi pourquoi pourquoi y a rien à dire pourquoi mooy euh, déjà teint am c'est bien. Mhm. mi ngi teg loxoom ci kanamam gis nañ ni teint loxo bi ak kanam bi c'est parfait. ñoo mhm. niroo. Mhm. benn la benn la. de de. maquillage bi mu def si bët yi. Mhm. c'est super bien. Mhm. nuróowul ak yére bi ak yére bi déjà. Mhm. te mi ngi clair éclair si kanamam. parce que moom xam nga ni teint noir la. mi ngi def maquillage boo xam ne si bët bi mi ngi éclair si kanamam. sans bon maquillage mi ngi ci bët bi. nuróowul ak te éclair si na kanamam sans frappé. ñu ngi koy gis bu baax. te ba noppi moom soo xoolee. bët yi. la privilégié bët yi la maquillé. waaw et que lèvres moo wàññi ko voilà c'est vrai lèvres yi dafa ko. mooy li ma doon wax rek. la. waaw <laughs> may wax de. bon bon bon maquillage mu euh, am règle. Euh, comme ni ñuy solo. Euh, comme ni ñuy solo waaw comme solo bi ni mu amee. mu amee wax ñu léegi uh-huh. sànq. Mm. maquillage femme règle mu nekk lu lu lu am solo. ñu ñëw ci Viviane Chidid. waaw Viviane Chidid très bien aussi. Mm-hmm. maquillage am teint am c'est harmonie. Mm-hmm. deful lu ëpp. bon teint bi kanam bi niroo nag yaram kanam gi niroo na yaram bi c'est important. yaram mooy base bi. mooy base sa teint bu ëppee rek sax. mën nga def sax faar yu baax. faar def faar à yu baax faar à yu baax. te du jëriñ dara. parce que sa couleur la ñuy njëkk xool parce que boo jëlee sa kanam def ko maquillage ba mu weex moom la ñuy njëkk gis que sa faar yi déjà mm-hmm. te moom li mu def nii c'est bien même faaram bu àndul teint c'est très bien faar bi ànd bi ànd na ça faar bi ànd na ça waaw mm-hmm. ça mm-hmm. très bien moom Coumba Gawlo oui c'est très bien Coumba Gawlo tam dox na waaw Coumba tam dox na c'est simple c'est elle est elle est fraîche. waaw mhm. te simple na. c'est c'est surtout naturel. surtout naturel très naturel. très naturel waaw naturel. naturel mhm. comme damay joxe exemple yére bi ma sol nii gis nga multicolore la. Mhm. soxlawul woon may jël couleur yi nekk sama yére yëpp def ko samay bët. en général loolu la gis nit ñi di ko def. Hmm. jël yére boo xam nga am naa rose am bleu. am kii waaw dangay jël dënd en général dangay jël benn ci kii bi. voilà nga teg ko ci. au pire nga jël benn si yére bi nga teg ko si. mais en général fii dañuy jël li couleur bi nekk fii yëpp def ko seen bët. ah bon couleur bu wuute la ñuy jël. voilà bët du yére. <laughs> du yére en gros. en gros te toujours maquillage dafa am kii règle. maquillage yu bët surtout dafa am règle. clair ngay njëkkee ci biir texte bi gën a foncé mujjee bi gën a ñuul ñuul. mujjee bi gën a ñuul waaw dafa am règle. am na solo am ngay teg fii clair ngay teg fii. clair ngay njëkkee non ci ci bët bi nii ci cat bi ci booru ba clair. Mm-hmm. mooy bu blanc bi ngay njëkkee teg si bi si topp gën a foncé. jël bu ñuul bi bu fekkee bu ñuul ngay def nga mujjee ko. léegi bu fekkee yow benn couleur moo la neex nag. mën nga ko def benn couleur. benn couleur léegi benn couleur boobu noo koy def da koy def mu foncé da koy def mu clair wala nan nga ko war a def exactement ça couleur bi ngay euh, choisir bu fekkee couleur bu clair la mm-hmm. nga marqué après say sourcil nga marqué say sourcil ak sa cils mooy nga def liner mm-hmm. ba pare def tuuti crayon sa mm-hmm. waaw bu fekkee bu clair la bu fekkee bu clair la waaw d'accord mais mais mais mais boo amee bët yu boo amee bët yu ngande bu mm. ko maquillage mukk bu bëri parce que déjà yaa ngi am bëju ngande. macha allah léegi léegi euh, léegi léegi maanaam bu dee da nga am euh, lii yii. Euh, sourcil yu bëri yu yooyu yu gras yooyu. yu gras yooyu am yoo xam dañ ko am yu gras. waaw léegi nag il faut que tam yow nga dagg comme ni ngeen di def yéen nii nii. waaw su nga dagg. ah normalement il faut nga épiler déjà pour commencer. pour def tool bu rafet léegi jigéen mën na bañ a épiler. ah jigéen moom mënul bañ a épiler. <laughs> normalement mën na mën na mais après bu fekkee hmm. sa dënnu suuf. Mm-hmm. dafa baax parce que am na yoo xam ne noonu la ñuy juddoo seen dessin suuf c'est impeccable dafa mel ni dañuy épilé wu mm-hmm. mais bu fekkee sa dessin suuf si dafa mel ni comme man <coughs> est tàmm ndax loolu am na astuce Amina waaw am na astuce yow comme ni ngay def laa dafa sëqale mm-hmm. foo ko fekk daf koy brosse waaw yow joxel joxel joxel joxel joxel astuce yi pour ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan <laughs> ndax yaay suñu esthéticienne préférée waaw waaw c'est que mën nga bañ a épiler euh, surtout que euh, en général ñiy muuru am nañu si bari ñoo xamante ne soppuñu kii épilation boobu mhm. Mhm. kon benn astuce mooy nekk da koy brosse boo ko brossee xam nga daf lay permettre nga discipliner ko mhm. après nga jël crayon rek laal tuuti ci cet bi pour pour génnee pour génnee kii bi forme arc bi nii rek mhm. xam nga man daal benn benn boobu laa xam ne on peut on peut vraiment sa permettre di ko def te du soxla ngay ngay épiler ma teg ci beneen euh, mhm. su fekkee ne tamit da nga bëgg sa yéen ngay bañ ko mu sëq am benn forme bu rafet mhm. euh, guddi gi euh, soo defee li nga def ba pare da ngay jël brosse boo xamante ni c'est spécial kii bi rek nga brosse ko jël tuuti karité diw ko. Ah, bàyyi ko mu wàcc. après nag euh, yéen ñi dafay sax jël ah, benn forme bu mu sax pour mu sax. <laughs> Ah. ak bi xaw ma ko woon. <laughs> waaw boobu day saxal yéen à partir d'aujourd'hui waaw day koy sa yéen sax su ko mhm. defee du jaar sax crayon. da ngeen ma benn boo xam ne sa yéen rek ngay bàyyi noonu. kon da nga koy da nga forme bi nga bëgg. bi nga bëgg. après jël karité bi topp ci. waaw topp ko après dem tëddi. soo yeewoo mbaa du jaxasoo xanaa boo réglé wut boo réglé kay <laughs> xam nga <laughs> dama ko xam dama ko xam xam naa ne comme moom comme moom réglé wul moom moom ko mel ni toppee la de saa ma mbooram sonal na ma <laughs> bon maman li nga fi indi woon Rose Rose maman dafa fatt nii la mel fatt ma Rose bon euh, ñu lay gërëm waaw dina gërëm ci euh, ci maquillage yi euh, ñu koy gërëm bon loolu loolu lañ fi indiloon tey Rose euh, ci maquillage de star Amina ñu nuyu nañ la gërëm nañ la sant nañ la waaw man tam maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant mais di nuyu également sama dëkkandoo yi ca Wakaam amuñu amuñu seen awma seen fay rawatina ak Adja Maysa Diop ak Ñeñ Ndiaye du nuyu également sama xarit Badalay macha allah jàpp na ci liggéey bi bu baax a baax. ah di nuyu euh, Ndeye Marème madame Dione ñoom ñëpp ak ay ay collègues ñoom ñëpp nekk ministère euh, de l'urbanisme ñu ngi suivre bu baax. Petit Déj ñu ngi suivre bu baax Walf ah am na ku ma woo démb également nee na ma moom. inconditionnel Walfa la. jaajëf waay. war euh, rawatina nag petit déj. donc naa naa eggale nuyoo bi. yóbbanteel ma ko jaajëf waay. waaw kon <laughs> mon ami coach nee na jaajëf waay. jaajëf waay man nag man nag may may rek. parce que sama nit la sama euh, kii la euh, Sidi Gueye mhm. ak soxnaam mhm. di sama pharmacien nekk fële ca Tëngéej kii cité rajo mhm. bu fële wetu HLM Tëngéej sama xarit la Sidi Gueye ñu lay gërëm di la sant euh, yow tam ñu lay lay gërëm. dama bàyyi ma nuyu sam maam déedéet. waaw xanaa xanaa nga nuyu sama maam comme moom laa fi gën a yab. waxal benn rek laa la <laughs> sama maam laay nuyu euh, sama maam Awa di fi soob di sama xarit di sama lépp di sama gaayen man ak moom ñoo bokk groupe maa nuyu bu baax ak sama maam Astou Mbaye ci pi yëmbal ak sam maam tamit euh, Yacine Diop Thiaroy. d'accord ñu lay sama maam yi laay nuyu. waaw ñu lay nuyu maam yi moom xam naa dinañ sonn ndax sët bi dafay dafa <laughs> <laughs> effectivement mbokk yi ñu leen di gërëm di leen sant li leen leen fi ñu loon tey di souhaiter euh, euh, euh, bon établissement suñu suñu suñu malade yi nga xam ne dañoo war a ñëw gànte mm-hmm. coo national suñu suñu suñu ajorot bi aussi ñu koy ñaanal jàmm ajorot laaj Sanju laaju Saliou Bey Saliou waxee Saliou Bey ni ne Sanju bàyyi ma Sanju Bey El Hadj Saliou Bey El Hadj Dramé aussi euh, ño ngi koy nuyu di ko euh, ziar ak Binta ak Adja Binta Léopold Tamba nuyu lañ la mbokki jàngeen jëf seen koltu mooy si mbégte lii lañ leen fi indiloon tey ñu leen di gërëm altine ak jàmm di ngeen ci ànd ak soxna Matel Kan dimanche ñu teewaat ñuy gërëm Adja Sakho maire Filing Arafat Grand Yoff mbokki jàngeen jëf ñu yendoog jàmm